gis ki utal raxasukaay ak ak kopp koo xam ne balaa kenn dugg Bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué 132 du ministère de la Santé et l'Action sociale de ce samedi 11 juillet 2020, qui a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. sur 790 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,71%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 91 cas, 91 cas contacts suivis par nos services, 41 issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiawaye 4 Grand Yoff 4 Keur Massar 3 Mbao 3 Parcelles Assainies 3 Liberté 4 2 Ouakam 2 Rufisque 2 Thiès 2 Cité CPI 1 Diamniadio Dieuppeul 1 Front de Terre 1 Gibraltar Gibraltar 1 Kaolack Liberté 6 Mamel 1 Waguñaay 1 Patte Richard Toll 1 Scat Urbam 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. L'état de santé des autres patients est resté stable. À ce jour, 8014 cas ont été déclarés positifs, dont 5381 guéris, 145 décédés et donc 2487 sous traitement. Le ministère de la Santé l'Action sociale souhaite un bon rétablissement aux patients dans nos services et réitère ses recommandations en direction des populations pour le respect des mesures barrières notamment une distanciation physique de moins un mètre, le port de masque, le lavage des mains. Je vous remercie. salaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé tey samedi fukki fan ak benn ci weeru juillet bi ñu nekk ci résultat yi xam ne bàyyeekoo nañu ci. suñu laboratoire yi lii lañu wone ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk test yi ñu jot def fanweer ak ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu juróom-ñeent fukk ak benn moo ci cas contact mooy ñi nga xam ne ñoo jaxasoo ñu yore feebar bi te dañoo jaxasoo woon ak ñi am doomu jàngoro ji ñeent fukk ak benn ñoo ci cas communautaire mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo jot feebar bi te xamuñu fiñ ko jëlee ñooñu nag nii lañu tëddee géejawaay am na ci ñeent Grand Yoff am na ci ñeent Kër Massar am na ci ñett Mbaaw am na ci ñett Parcelles Assainies am na ci ñett Liberté 4 am na ci ñaar Wakaam ñaar Rufisque ñaar Thiès ñaar Cité CPI benn Diamniadio ben Dieuppeul benn Front de Terre Gibraltar am na benn Kaolack benn Xombol benn Liberté 6 benn Mamel benn Nord Foire benn Waaguñaay benn Patte benn pikin benn Richard Toll benn Scat urban benn et benn juróom-ñaari malade ñi ne entré woon juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukki malade ñu nekkoon ci hôpital wér nañu ci bésu tey te bu ci yàlla àndee dañuy génn fanweeri malade ak ñeent ñoo ci nekk ci réanimation ñu ngi sant yàlla amuñu kenn ku génn àdduna ni ki démb ñeneen ñi des ci hôpital bi ñu ngi am tan bi ci bësu tey dalee ko ci kaa njëkk bi mbas bi duggee ci Sénégal jot nañu wàññi juróom-ñetti junni ak fukk ak ñeent doomi aadama ñi xam ne jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróomi junni ak ñett téeméer ak juróom fukk ak benn wér nañ téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo génn àdduna mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal malade yi nekk ci hôpital bi yàlla may leen tan tan ba ñu génn ak jàmm di gën a ñaax askan bi ñu gën a sàmmoo ak digle yu ñu joxe ci digle yooyu nag ñu fàttali leen ah, ci bërëb yi nga xam ne dañu fay nit ñi dañ fay tase ñu fexe toujours képp ko nga xam ne yaa ngi janoog moom lu toll ni mètre dox seen diggante nit ñi bañ a fàtte te farlu loolu ci seen masque yi fu ñu toll tamit di raxas seeni loxo ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam